Ousmane Sonko mi yilif jëwriñ yi nek ci bop nguuru Senegal dal dina def ab sorti hamal xamal sénégalais ni fas na yene top kep ku luubal alalu réew mi tey nag ñu doxantu won fele ci Grand yof ngir lajende askan wi ana nan lañu gisé kaddu ilimanu ilimaanu yi ñom nak ñongi rafetlu bu baax dogal gi nguur gi jël. lol lol de ñun biñ ko déggé moom dañ ci trop parce que dëgg tam ñi fi nekkon dañoo yaq rew mi de. waaw dégg nañ ko ci domaine yëpp wax ba ci euh, ñi xam te ni maanaam dañoo suñu suuf si loolu lépp dégg nañ ko ci ñun moom foofu lañ ko doon xaar foofu mu gën noonu ñun foofu lañ doon xaar en tant que Ousmane Sonko en tant que premier ministre foofu lañ doon xaar pour mu gën parce que dëgg itam feneen fu mu gënoon fu nekkul foofu rek ñun askan wi ñun dañ koy mere te itam dañ leen di sanctionné parce que ñun mënuñu la fol nga nekk benn euh, benn ministre ñu la doon gis démb ak tey yow yow suñu la folee même pas balaa at bi jeex nga am ñaata kër fii Ndakaaru Njaay te du fi jeex ñaata ministre sool da ngay dem fi laa woyo fee géej gënee soo fa demee xoolal soxal bi day jeex da ngay rus man dëkk ma géej waay mais keroog fa laa jaar foo xam ne ñëw ma fa jaar man fa jaar ba ca rond xam nga foofu nañ ko def itam dafa ñaaw te da ngay te géej gi kenn moomu ko géej gi ala kulli aani mën naa déborder. bon loolu comme que promesse de campagne la woon ñoom bi ñu campagne lañ ko doon wax ne bu ñëwee ci bopp réew mi képp ku leen képp ku yore loon waa réew mi da nga leen di delloo loolu tax nit ñi voté leen ñu am pour cent léegi loolu bu ko waxee dafa topp yoon bi mu nekkoon rek nit ñi tamit loolu demand social la dañuy laaj seen xaalis fu mu dugg ñi ko jël ñu delloo ko état bu normal noonu la war a doxee boo ñëwee ci lieu da ngay def audit xool lan moo fa manqué ak lan lañ jël bu fekkee dafa am lu ñu manqué loo xam ne dañ koo jël te teguñu ko si yoon ñooñu delloo ko loolu bu normal noonu lay doxee. waaw ah, foofu daal sëñ bi sama gis-gis mooy alal réew moom képp ko jël te moom waroo koo jël te li nga jël réew mee ko moom delloo ko nit ñi. ku ko mënul delloo nit ñi ñu du man xam nga Ousmane Sonko dañ lay teg sanction lan la dugal ci kaso bi dañ leen a jël dugal ci kaso ñoom ñëpp ñu fay alal réew mii fay bor bi ndax réew mi nag bu ñu waxantee dëgg ku la neex na dalay nax ndax ñun Ousmane Sonko dina amoon ci moom yaakaar wooteel ko yaakaar jooju na yàlla bu mu tas mais nag fi mu nii liñ gisagun suñu xel dalul de te doonoo bëgg suñu xel dal nag ndax doonoo bëgg suñu xel dal mooy bu loolu passé mook président bii ñu waxtaan ci commercial bii mu ceeb bi ñun ceeb bi farataal nañu de ndax ceeb bi fi mu ne moom ñun ñu dëkk ci banlieue bi métti na lool boo demee ñu lay wax 550 600 francs léegi daal li ñu bëggoon mooy nañu ci dimbali ci réew mi ndax nag yaakaar ji ñu amoon ci ba yàlla bu mu tas mais yaakaar ji léegi fi mu ne teel xel fi mu vraiment. bon man moom si li ma gis dañoo war a delloo alalu réew mi quoi ndax boo xoolee réew mi jaxasoo na trop ku ñëw toog. yóbbu suñu alal ku ñëw tëb yóbbu suñu alal koo gis am ay cinquante milliards cent milliards te doo xam sa fu mu ko jëlee il est temps nag que gars yi delloo suñu alal bi yëpp ndax dañ kaa soxla. fii àdduna la te Sénégal lañ nekk dañoo nekk si dëkk boo xam ne ñu ñu ñu ñëpp ñoo xam ne dañuy dëngal ñëpp ñu jubal réew mi nag ma ko Macky Sall yoree gars yi ñu ne am nañu sàcc xaalis réew mi ñoom am nañ si njort. am nañ si yaakaar te xam nañ leen ku kuñ si xas a xam buñ la bàyyi kuy sàcc sa fukki dërëm na ko génnee. Modou Diop ak baabu nag ñoo ngi ñuy xamal ni lii du lu bees waaye am nañ yaakaar bu baax ci biile gouvernement. ñun de am na ci yaakaar la doon Macky Sall mu ko dal commencé ko pare te doo am fin moom loolu daal ñaanuñu ko yàlla moom daal na dem ba jeex tàkk ku lekk àllu réew mi daal te moomoo ko na nga ko delloo ku moom loolu daal moom nañ ko képp koo xam ne ko te delloo nag. na ko ci kaso bi man mom gaay dina dinaan dana ko dugal ci bir kaso bi mu fay ndax rew metti na metti na lol lol lol lol bon dina am mujj rafet parce que Ousmane senko la connaissant ku deuguer bop la te bu jappé du bàyyi te nekul ben nit moy gérer actuellement ay nit ñoy gérer mom bu bëggé bàyyi sax jomay mëna baña bañ wala jomay bëggé bàyyi Ousmane senko mëna baye bàyyi te système bi yëpp dañuy mujju tënku si liñ li askan wi. waaw Ousmane senko ak Macky Sall non man euh, duma leen comprendre parce que bokku ñu parce que Macky bi fi ñëwee fii nii 2012 dañ koo xeexal fal ko mu ne moom dina fi indi lu bees yaa ngi ñi mel ñi ñi mu ci jàppoon ñëpp man su ma cité kenn laa xam ne jàpp nañ ko ci mooy doomu Ablaye Wade bi lañ ci lañ la leer ne jàpp nañ ko ci fi nekkoon ay Awa Ndiaye ko du ñëpp dañoo dem boote ci ñoom mais nguur gi ñun dañ dul nangu sax ab opposant nekkoon fii àndoon ak Macky Sall ba Macky Sall fi ngay dem di ànd ak ay Ousmane Sonko Ousmane Sonko di la jël di tab dara xanaa koo xam te ne ay loxoom set na te na xam-xam te de gëm nañ ne ñun ah, ñu nu fol nii ah am nañu yaakaar ci ñoom ne xolal ak yaqin boo xam ne du ay waxi suñu ñun ñu Ousmane Sonko su ñun ñu Ousmane Sonko ak ak ak parce que ñun tax ñu bon Sonko nañ ko ah. Sonko nañ ko mission bi quoi dina mission bi parce que mu ngi ni amagul mois amaguñ sax 6 mois au pouvoir mais bon ñu ngi def liggéey hein. récupérer affaire te gëm nañu ni yéegali lépp dina récupérer lépp tamit. ginnaaw ba ñu bëri jàppee ni Ousmane Sonko taxawaayu njiitum réew la fi taxawee ñi nag di ñu xamal ni loolu du lenn lu dul waxi ku jee. non sorte bi nii du moom moo ko du Diomaye moo ko war a def parce que Ousmane Sonko mooy premier ministre Diomaye instant bi Sonko di def sorte bi mu ngi fële donc Diomaye bu fi nekkul Ousmane Sonko moo war a toog gérer wax ak askan wi. waaw ci maanaam nag foofu daanaka Diomaye mooy président. mais ñu Ousmane Sonko lan xam nag Ousmane Sonko lan xam ginnaaw yàlla jomaay bu toogee na ko sant Sonko ñu Sonko lan xam de ma ne ba may woote Sonko tax may woote mais ma jomaay sax man jomaay mi ngeen laa ko xam xaw ma kuy jomaay man sama Ousmane laa xam ñu Ousmane ñuy waxal waxuñu ak jomaay de wax dëgg yàlla dëgg la nag jomaay président mais Ousmane Sonko lan xam waaw Ousmane Sonko daal ah nan jaar ci moom dem ci jumaay rek fekk ñun moom lan xam moom lañ koy yóbbante rek nan dimbali ci réew waay waaye nee ko réew na lool réew mi na nañ ci dimbali waaye réew mi neex dégg nga am nañ ci moom yaakaar yàlla bu yaakaar ci tas non man gisuma loolu comme ni euh, poste président lay taxawee non non Ousmane Sonko premier ministre la du président quoi foluñu ko président Diomaye la ñu fol te man ci li ma gis ah costume premier ministre lay taxawee man loolu laa gis man man moom man loolu laa gis man moom loolu ma loolu laa gis te itam man gëm naa ne loolu la loolu taxawee taxawaay premier ministre mais mënul taxawee euh, taxawaayu présidentiel président quoi loolu moom nit ñi koy wax ñi ah man gëm naa ne ñoo bëgg indi yeneen bagage quoi yoo xam te ni waruñu koo indi quoi parce que fi mu ne Sénégal yi ba da ngay wax sax ñu ne Ousmane Sonko Jomaay alaakule dañuy dañuy taxalo taxale ko ab an an boo gis taxale woo mën naa nekk quoi mais suñu taxaloo pas politique moo leen taxaloo wala pas pas gis-gis quoi parce que dëgg itam ñoom dañoo bokk gis-gis Ousmane Sonko am lu mu sent Jomaay ba tax mu jiital ko ba ba Sénégalais wóolu ko def ko njitam rew te jomaay du wor parce que jomaay séréer la te ñom ñaar ku ci wor sa morom dang koy gis Ousmane ya am séréer la papa am joolaa la ku ci wor sa morom ala kuli àll dang koy gis te loolu du am quoi. mom Sonko dafa mel mom moy président sax moom si boppam da mel mom moy président de la République du Sénégal da boo xool taxawaay mo kay def saa yu wax wor am mom moy taxaw wax moy gëna def effet quoi en fait Sénégal instant te mom moy gëna feñ feeñ ci mbir ok merci beaucoup.

ñun ñu ngi nii dañoo jug di xeex di def lu nekk mais kenn fayuñu kenn ñu dërëm ba ñu Sénégal leen bëgg donc képp koo xamante ne laa fal danga nga war a liggéey te si lu leer te loolu ñoom Sonko ak Diomaye nekk di def instant bi si réew mi. waaye dama la lépp loo xam ne ne xaalis réew mi lañ sàcc ko waaye def ko ne ko noonu képp ko mën sàcc na ko feeñal dañ ko teg dañ rëq ndigam mu gën a xaas bi ñun suñu réew mi kenn ci su alal kenn nit ak yi moo ko jox ko say doom ak say ñu koy pasa pasa si réew mi déedéet àllu réew mi nañu ko génnee réew mi liggéey si dañ si sonn réew réew parce que boo gisee Sénégal métti ni yëpp sàcc gu métti gi la sàcc gee koo laal ay milliards la yor koo si koo koo si